gagné ba pare bëggoon déedéet gagné gagné ba pare bëggoon nekk Dakar ma ne gagné ba pare bëggoon nekk Dakar non non sant yàlla en fait euh, xam nga li réew mi yëpp doon wut en tout cas ñi réew mi soxal ñi bëgg réew mi bëggoon nañ lii ñu wut ko ay ati ati at depuis les indépendances ñu ngi daw ci ginnaaw Coupe d'Afrique yàlla may nu ko ci benn scénario bi nga xam ne moom rek moo ko mën bind mais loolu dafay daw yaram donc euh, te xale yi dañ ko buggoon réew mi bëgg ko njiit réew mi bëgg ko président moo ko njëkk a teg ci yoon bi ne ne leen nag coupe bi lañ wax. dégg nañ li président bi wax waaw parce que c'est normal njiit loolu lay njëriñ njiit day joxe yoon day wane yoon gars yi topp ci dafa ne bi la bëgg moo tax boo xoolee bu baax réaction joueurs yi ci match yëpp bu ñu gagné dafa du ñu jubilé parce que ñoom pour ñoom seen objectif mooy gagné final mais même bu ñu gagné demi final bi ngeen leen di interroger da ngeen di dégg ñu leen di wax toujours ni ñoom ñëwuñu dañoo ñëw pour bi. donc nit ki li muy daf koy am mais loolu yëpp dafa fekk aussi liggéey bu yàgg bu bu ñu yàgg def ci gestion bu bees bi su le magistère de de Macky Sall ak euh, la direction du ministre des sports il a eu beaucoup de questions yi nga xam ne da doon polluer atmosphère du sport surtout équipe nationale de football mu deñ donc ay prime ah ay transport ay yooyu yëpp kenn xalaatu ko woon mu am stabilité tamit ci encadrement technique un coach sénégalais bu nga xam ne teg nañ ko ci yoon mu nangu tamit di déglu mu gëm li muy def aussi un homme patriote mooy Aliou mu ñëw fekk fédération bu nga xam ne tamit ñoom it bëggoon nañ ko ñoom ñëpp ak li Sénégal yéene fekk joueurs yee ñu ko gënoon bëgg euh, yàlla may ñu nag un leader technique bu nga xam ne pour man se l'un l'un des tout meilleurs joueurs du monde Sadio Mané Sadio Mané a fait une Coupe d'Afrique exceptionnelle Sadio Mané oui c'est normal c'était il devait Ballon d'Or depuis longtemps mais ballon d'or mondial mais li Samir do wax rek ñun dañoo dañuy xeex suñu bopp parce que ñun ñooy xeeb suñu bopp waaye li am solo mooy ndam li dama war a nekk départ vers nouvelle ère parce que nous avons une génération relativement jeune avec sur les quatre lignes de l'équipe nationale des joueurs de dimension mondiale boo jëlee góol bi nga jël euh, défenseur central Kalidou Koulibaly nga jël milieu terrain bi ak Gana ak attaque bi ak Sadio Mané waxuma la loolu dafay wane ni am nañ équipe bu nga xam ne équipe yu bëri ci àdduna bi amuñu ko en terme de potentiel nga am tamit ay ndaw yi nga xam ne ñu ngi fëgg ci bunt bi ak ñi fi nekk di affirmé wu. waaw mais oto yi lañ di nii oto yi tey jii euh, y' a un an kenn waxul woon Bamba du dëgg y' kenn waxul woon Pape Gueye te tey ce sont ils vont de l'équipe nationale donc loolu yëpp ñoo fekk nag. ñu war a continuer nag di am ambition war nañ bañ a suur dañoo war a gëm ni coupe bi gagné nañ ko mais war nañ qualifier coupe du monde war a gagné jiwaat coupe d'Afrique bu soobee yàlla ci euh, Côte d'Ivoire ba pare nag non il faut ñu am déjà ñaar ci ñaari at yi waaw yàlla mun na ko waaw mën na